ay kéemaan ak ay firnde ci mbooloom ñi gëm ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar ñeent aaya fanweer ak ba aaya fanweer ak juróom ñaar ak saar juróom saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nanu bamtu nettali bi weesu benn ci jan doole la Pierre ak Yowaana fajee lafañ bi Pierre ak Yowaana nee nañu du ci seen baax wala ci seen doole lañu faje lafañ bi waaye ci doole Yeesum Nasaret ñaar ndax turu yéesu ci boppam baatub ñango la déedéet doole ji nekkul ci tur wi waaye mu ngi ci yeesu ci boppam doomu yàlla ji bu ñu ñaanee ci turu yéesu moom ci boppam lañuy sàkk mu dimbaliñu ñett kan moo may Pierre doole ngir mu seedeel yéesu xel mu sell mi moo ko may doole jooju ñeent lan la Pierre ak Yohana tontu njiitu yawut yi bi ñu leen teree ñu seedeel yéesu dañu ne déggal yàlla moo gën déggal nit kon war nañu wéy di wax ci mbirum yéesu